الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي بكي طالبي رواتنا يين سما بكي طالبي ييغا خامني ني طالبي سيرن توبا يو خامني سيرن بشير موي سونو بونتو جي كير سيرن توبا شيخ محمد المنتقى مي دي سونو جاورين تي ليغي بي دا نو باخو بو نغي ني ني مونو كو باخو واخي رك ليمو ييني بوبام تي يينينو كو mu dina soññ ci du ñu won yoon wa nuy jaar ba mën na rafetal sunu taalibe mën na jariñu ci sëriñ bi loolu nag da cay bokk waxtu wu nekk nuy bàyyi xel ci ne doonu dara suñu bopp sëriñ bi moom suñu lépp waaye bokk ci itam nag ci aada yi taalibe gu ci aada yu rafet yi nga xam ne ci aada yi taalibe la bokk at mu nekk taalibe bi sàkk ci la ko yàlla wërsëgale lu ñuy tuddee addiye te loolu sax bu ñu ko tuddee noonu laa biir rek sëriñ bi la ak ndimbalu sëriñ bi ci noonu waaye danoo wëta am lu nuy denc bari ci sàkkaat yi lin moom lépp sëriñ bee ko moom te mag ñi noonu lañ ko daan defee lu ñu am lépp dañ ko yët sëriñ bi kon nag bu ñu nu bàyyee li nu am ba benn diggante képp sëriñ bii di nu wax ne kenn ku ne lam am na ca indi nu boole ko mu boole ko lam am yóbbu na ko fa sëriñ Touba loolu ndimbal la ci noon ak gàttandul la ci noonu ak laabiri la ci noonu kon nan taatanaan ndigal loolu déglu sëriñ bi mu digal nu ko nu fas ko yéene jëfe sëriñ bi ci biiram day wax ne gis na ne bi ko tàmbalee ba léegi at mu ne day gën a yomb waaye dafa war a gën a yomb bu baax a baax a baax a baax nu ñi ko seq kenn ku ci nekk boo xamee ne doonu sa bopp dara la am lépp nga ko dana yomb ci moom bu baax daa war a yomb kon nan fetli pas-pas yi nan taatan déglu sëriñ bi te fas yéene dégg ndigal li te fas ko yéene jëfe loolu mooy sunu njëriñul tey ak ëllëg nu maase ci déglu sëriñ bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki taalibe yi داري ثرين بشو نيكو سنجا واحد ينا ورال واتبي مانا نو ورال واتبي نون نيغا خامن نو بوكو داري كسرين بسيرو ni yoon wi baaxoo doxe rek lañ ci eh, jiim di ci gën a di gën a xam doxin wa di gën a eh, am pas-pas bu dëgër këng eh, ca ca ca ca lawaral doxin wa di gën a fab suñu yitte yëpp jëmale ko ci muy loo xam ne itam loolu moo moo moo jiitu ci liggéey bi liggéey bi nuy liggéey bi nu war a liggéey sëriñ bi ci wàll yëpp loolu dara def ko cee jiituwut ndax saxaabatu rasul noonu lañ doon doxe ak sang ba taale yu yu jëkk yu mag yi yëpp yitam noonu lañ doon doxee ak sëriñ bi kon warunoo jéem a xam lenn lu dul xam doxin woowee te eh, eh, def ci sunu pëstéef bu ma sëkk def ci sunu yitte ju ma sëkk eh, dëgg la liggéey bi yaatu na lool te lépp bu ñu sañoon lépp la ñuy def waaye nag lii day loo xam ne daa bokk ci li mu ta ñàkk ci doxinu yoon bi la waral euh, sang ba daan ko andi woon kooku saabatu rasul euh, di la waral donc taalibe yu mag yi dong yu mag yi yu baax ya àndoon ak sëriñ bi euh, doon doxee noonu loolu am na am na lu tax loolu nag day moom liggéey boo xam ne bu mënta ñàkk la di liggéey bu rëy dëgg la la jiitoon ca boo jamono jooja jihaad moo ci jiitu woon jihaad dama wi xeex ak yéefar yi loolu moo ci jiitu woon loolu nag suñu boom mi soppe soppi na woo doxin waaye eh, jihaat jooje xëy na tuur deret moo am moo moo soppi ko waaye jihaat ji ci boppam dara soppi ko ca mu jihaatu nafs xeex ak yi ci biir ak ci bitti bu mën koo jëmale ci sunu borom ci sunu yëngutu yëpp nag xeex ci jiima defar sunu bopp sunu kem kàttan gën koo mën a joxe ci samay waxi taalibe ci bi yàgg mooy door a jóg daanaa wax ne kuy joxe dangay joxe lu baax ginnaaw ñun dañoo baaxoo joxe suñu bopp kon nan góorgóorlu ci suñu bopp ba mën ko gën a joxe mu am yaakaar ci ne nag liñ joxe am na njëriñ loolu mooy cosaanal woote bi Euh, euh, waaye nag lii moom euh, dañ koy tënk rek ci lu mel ne aw sas xam ngi ne tool daa yaatu daañ ca dooñ daañ ca sase taxul nga jàpp ne da ngay béy tool bi lépp yow yow yow sa sas bi euh, tool bi ay sas lay doon wala ay doon toolu sëriñ bi bii nag dafa euh, dafa yaatu te rëy euh, te liggéey bi di mu di liggéey bu rëy waaye nag ci wàllu ci wàllu joxe moom loolu dafa mel ne sas mënu ci ñàkk. ndax bu ñuy def sas itam bëggoon tool bi gaaw a jeex rek lañ ci jubloon kon dafa mel ne ci wàllu joxe moom eh, dafa mel ne sas mënu cee ñàkk ndax mooy tax mu gën a sakkan mooy tax mu gën a gaaw kon eh, dafa mel ne eh, liggéey bi ñun ñëpp noo ko bokk groupe bi noo ko noo ko bokk ak yow xëy na nag daara ay daara la aki jëwriñ ay daara la ak jëwriñ yaakaar naa ne itam nag nin ko bokkee suñ bokki taalibe yëpp noonu la ñuy bokkee yitte ja ndax kër gu ne ña nga am seen sasu bopp ña nga xam nañ seen sasu bopp ba yaakaar ne lañ ci ni ña ngi koy def kon nun eh, ci ci daara yi sëriñ Basiru jii nga xam ne sas xam na ne sas moo war a am ba tax sas woowu nag nu xam ne yitte la joo xam ne buñ bëggee tool tool bi bu bëggee liggéey bi rafet tamit sëkk te te te te te njëriñ la yaatu te bari il faut que ñu góorgóorlu kenn ku ne ci nun mu sas boppam ndax loolu mooy li ci am solo parce bi rek moo ci am solo ak yitte ji ak yéene ji loolu moo ci am solo ko loolu nag kenn ku ne yaa xam sa bopp waaw soññ gii may soññee ci liggéey bi. ci sasu sasu sasu kër bi kër gi war a am te tobbuñu ne fii la sas bi yem loolu dañ ko bàyyi rek ci Pastef yi ak yitte ji waaw yéenee liggéey sëriñ bi yéenee jox sa lépp sëriñ bi yéenee def sa yitte yëpp muy sëriñ bi loolu buñ ca nekkee nag ak la muy yaatu yaatu yaatu ci wàllu joxe moom nu tobbil ko aw sas sunu kem kàttan loolu moo waral woote bi nan ko daa defee rek ci biñ ko tàmbali léegi moo tax nu war a dellusiwaat nag ginnaaw at mi jeex na te at ma lanu ci sa topp lan lanu ca sasoo woon eh, alhamdulilahi rabil alamin borom bi eh, yombal nañu lépp li ci des kay mooy positif ak jom ak yitte akuk dogu loolu moo ci des eh, loolu nag nun jarabu nañ suñu bopp ba biñ ko tàmbalee léegi at jot seet naa ne la gën a yomb at mu jot la gën a yomb loolu nag alhamdulilah rabbil alamina li ñuy ñaan rek mooy gën a sellal yéene ji ba seen liggéey sëriñ bi gën a wéyal paste bi fa seeni liggéey sëriñ bi gën a yokk yitt ji fa seeni liggéey sëriñ bi loolu noonu rek la demee kon nu góorgóorlu ba néew ma kenn da ngay joxe da nga joxe nangam déedéet kenn ku ne na dellu si boppam seet kem kattanam diggam ak sëriñ bi ca la mu doon la xam ne bu fi sëriñ bi nekkoon moo lay doxe la mu war a la mu la war a yóbbu mu xam ne dara soppiku ci sëriñ baa ngi fi sëriñ baa ngi fi liggéey baa ngi fi dara soppi ko ci kon eh, ginnaaw noonu la deme eh, maa ngi soññ sama bopp di soññ ñi ma bokkal daara ñëpp ñi ma bokkal daara sëñ Basiru ndax ay yoon bi yëpp ba yéen lu jaax ay daara la ak i jëwriñ waaw kon eh, bu ñu yéene dañu yéenaale ñeen bokk sëñ bi ñëpp waaw bu ñuy soññee itam dañuy soññaale ñun bokk sëñ bi ñëpp ndax ñoo bokk ñoo li ñu bëggal suñu bopp rek moom lañ leen bëggal dara desu ci dara du ci des itam li ñu bëggal suñu bopp rek lañ bokk lañ bëggal képp ku ñu bokkal sëñ bi kon eh, eh, noonu la nu góorgóorlu ba mu demee nam daa demee ndax jarabu na noonu ba noppi eh, at mu jot mu gën a yomb muy sas wi sas wi fa tabaarakallaahu eh, eh, boo ko songee noonu day yomb lool eh, bu ko defee tool bi yaatu na lool te rëy ci biir ak ci bitti la nga dese ci man bu loolu génnee la nga dese ci man fa tabaarakallaahu liggéey bi lépp mën naa dellu ci liggéey bi dëggal li nga ndax nag sëñ Tuubaa rek la sëñ bi rek fi nekk liggéeyam bii mu fi bàyyi moom rek fi nekk dafa fekk na ki nga xam ne moo fi nekk sëriñ bi moom la lépp ci liggéey bi moom la war waaye la tax lu ko lu tax mu war ko dafa nekk ci suñu kanam nekk ci kanam taalibe yi taalibe yi jublu ko jox ko seen lépp te moo am lu ko war mu am wartiif boppam boo xam ne bokkul ak sunuy wartiif dafa am wartiif boppam boo xam ne wartiifam boppam moomee nag nun ñii noo ko ko ko warlul la muy man lépp ci nun rekk la war a jóge kon loolu moo tax ñu war ko beral loo xam ne ci liggéey bi loolu moom moom moo koy moo koy euh, taxawoo liggéey bi bu ñu defee suñu képp kattan ci taxaw ko ba noppi nag euh, fa tabaarakallaaw saas rek la mën a doon saas nag dafa yomb lool bu ñu jógee ci saas bi dellu ci liggéey bi ndax lépp liggéey bi Sëñ Tuubaa la wartif bi nu waral suñu bopp. war li nga xam ne war na noonu ci suñu bopp ci suñu bopp ci suñu digganteeg njaboot gi suñu digganteeg bokki taalu bi suñu digganteeg képp ku yaakaar sëñ Tuubaa tey bokkul di nekkul bokkul ci yoon bi sax waaye mu jógee bitim réew ngir yaakaar sëñ Tuubaa suñu digganteeg suñuy nawle di kilifa yi am lu nuy war war war war warloonte suñu digganteeg xew-xew yi te xew-xew yëpp itam bokk ci liggéey bi loolu la des ci sas bi moom laa tuddee njeexaat li fa tabaarakallaahu euh, loolu sax euh, ni sas fi yombe euh, maanaam takku gi nu am ba sas fi yomb day daal di mën a yóbbaale la jës lépp mu yomb loolu ndax ñu ngi noo ngi doxee nan daa doxee ba loolu am te man na ne sax ni ñuy léegi ba na agseegul fii jege ko woon man kon euh, euh, yaakaar naa ne euh, gën a fedd laxasaay yi gën a taxawu sëriñ bi ci ci warti wartik boppam du nu yàqal dara du nu wàññi dara ci suñu wartik boppam waaw bu ko defee nag nu am ñaari taxawaay ci liggéey bi taxawaay bi ñuy taxaw ci wetu sëriñ bi ci wetu gi nga xam ne moom lañ moo fi nekk sëriñ Tuubaa ak taxawaay bi ñuy taxawal bi ñuy taxawal ca suñuy barab ban fay taxawal sëriñ bi ñu gis bopp loola buñ boo buñ góorgóorloo yéen a ji yéen a jëpp di di yéen a ju rafet fas yéene liggéey sëriñ bi parce que bii lépp di lu wér fas yéene liggéey sëriñ bi yite jëpp di di di di di yokk di wéy fa la liggéey sëriñ bi buñ ko defee lépp day yomb sas yi day yomb lool fa tabarakallah la ca des yaatu lool bari lool lu ñuy def lépp lépp xañ na ci te doon duñ ko yëg ñu yàqal suñu jaamu yàlla doon yàqal suñu lenn ci suñu wartif kon noonu la ko la mbir mi demee eh, nanu gën a góorgóorlu bu baax wax dëgg ni ma ko waxee rek ban ko tàmbalee léegi at mu jot la gën a yomb at mu jot la gën a yomb at mu jot la yi la la suñu wartee fi bopp yi sax at mu jot la gën a ya la gën a bari ci lay gën a yombe euh, euh, misaal bi euh, bi nu joxee sunu sas sunu sunu sunu sunu sunu ba noppi ci dogal sun borom ba. bëgg yu poroxaan yu ay poroxaan feeñ ci bi mu ci feeñee nu daal dellu rek fan fan jóge woon ci yii ni fa seen liggéey sëriñ bi eh, am pësteefu fa seen wér gën a wéral pësteef bi ci fa seen liggéey sëriñ bi gën a yokk yitte ji fa seen liggéey sëriñ bi fa tabaarakallaahu eh, ba nu joxe yóbbee suñu addiyee ba noppi daal songu ci njaaxaar leen nu songe ko juma <laughs> juma ji jumay poroxaan fa tabarakallahu boobaak léegi ñu ngi liggéey nañ war a liggéey te dara taxawut te eh, eh, gannaaw bu nu jégguloo sëriñ bi muy Cheikh Sidi Mokhtar gannaaw bu nu ko jégguloo ba noppi ndax loolu lépp dara waru fi yoon sax dara lépp daa dem ci moom waaye nag eh, ci maslaam adduna ci warteef mu ci neexal neex a ànd ak neex neex neex neex a ànd ak gum neex a àndal ci laabiiram ci woyafam ci pëstéefam ci takkoom ci maanduteem ci njaamuram yëpp la boole àndi ko noonu loolu euh, moonu moonu gën a dimbali kon eh, buñ dee xalaat waruñu woon a xalaat lenn loolu lu nu am yóbbu ko nii ko suñ sa waxee ci biir ci ñaar benn gi waaye ku ne xam na ci xam na maslaam adduna waratiif loolu eh, yàlla koy dogal yàlla koy def waaye lépp mën naa yomb te du yàq dara waaw waaw du yàq ci suñu pësteef dara du yàq ci suñu yitte dara suñu yittewoo gën yéen a yittewoo liggéey sëriñ bi day gën a yaatal suñu yéene rek gën ko rafetal gën a yombal dox yéen bi gën ko rafetal loolu rek la moo ci moo ci moo ci feeñ waaye wa tabaarakallahu li ci am solo rek moo di ni ma ko waxoon bu njëkk yéene ju rafet ju sell parce que bu wér itte ju ma sëkk yooyu yooyu jumtuwaay bu nu ko amee rek lépp lépp yomb lépp yi leen na muy demee rek noonu rek mooy mooy mooy ba at mu jot nu gën koo man at mu jot nu gën koo man at mu jot itam nag mu gën a sellal gën a mën a sellal yéene ci gën a mën a wéeral pëste gën a yokk yitt ci ba mën eh, ci fas sax dàkk ci liggéey sëriñ bi eh, sëriñ bi noonu la nekkoon diggam ak boromam ak diggante yonent bi léppam ci diggante boobu la ko def jaamu yàlla ndax lépp ci dem yàlla dellu waaye yàlla la gër yonent bi ci lépp nag jaamu yàlla gu sel bu ma sëkk liggéeyal yonent bi liggéey bu sel bu ma sëkk caa diggante boobu rek la nekkoon loolu it dañu bàyyil nag ak lu mu ñàkk-ñàkk solo ak lu mu doy doy doy di loolu la ñu fi bàyyil loolu mooy suñ dono bi loolu mooy suñ dono loolu ndono nag ndono lu ma sa am ndono loolu moo ko gën ndax loolu ndono loo xam ne jeex jox sa bopp yàlla ba mu jeex takk jox ko jox sa lépp sa yëngut ak sa dal lépp mu joxe ko loolu mooy suñ dono sëriñ bi loolu ndono nag mus mel leen du noonu noonu mus mus mus mel kon mu sa gën a sant yàlla bu baax gën a jaayanteeg sëriñ bi fii ba fa nu jëm gën a jaayanteeg moom rek ci biir ak ci bitti loolu rek mooy fi mooy li ci am li fi nekk mooy li ci am solo lépp ngi ci biir li nu waroon na wax li nu bëgg wax lépp dañ koy tënk foofu dañ koy tënk foofu waaw li ci am solo rek moo di loolu góorgóorlu gën a yeesal jaayante gi non gunu noyyi ci gën a yeesal jaayante gi mooy tax jumtuwaay yooyu nu gën koo mokkal gën koo mën a jëfandikoo te sax ci dàkk sunu xel du dem ci lenn sunu xel wër sa dem ci lenn lu dul yittewoo sëriñ bi rek kon mbokki taalibe yi yi nga xam ni noo bokk daara ñun ñëpp ay taalibe lañu sëriñ bi taalibe la noonu séddi boppam kon taalibe rek la am kon mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne noo bokk daal yi sëriñ bi siw liggéey baa ngoog nanu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax suñu kem kattan dañuy defaral suñu lépp dañuy gën a defaral suñu biir gën noo defaral suñu bitti gën noo defaral suñu tey yàlla na àdduna gën noo defaral suñu àllaxira ci ëllëg waaw jërë jëf nañ góorgóorlu bu baax li ma bëgg a wax eh, bu fukk baat benn bi sax noppi wul <laughs> waaye nag yàlla mi nga xam ne eh, moo moo moo moo tax moo waral lépp eh, xam na li nga xam ne mooy suñu yéene suñu yéene ji am ci ci sëriñ bi moom alhamdulilah bi laa gannaaw ba ko santee xam ne na moo ko def ci noonu kon noo ngi koy sant bu baax boole gi mu boole sëriñ bi di sant sëriñ bu baax faggul gi mu faggul lépp biir bi di tey ëllëg ngi sant sëriñ bu baax fas yéene ko gën a jox suñu bopp di ko seeral suñu borom sëriñ bi rek lañ bëgg muy tey muy yàlla moo ko def ci noonu ñoo ngi koy sant bu baax xam ne ko ci noonu kon jërëjëf suñu borom jërëjëf sëriñ Tuubaa jërëjëf yi gaa yu baax yi jëkkoon ànd ak jërëjëf yéen yi ma bokkal jamono ndax xam naa ne kenn ku ne xolam waa Tuubaa nga ci biir loolu doy na tawfeex doy waaye nag nanu góorgóorlu bañ a sàggan sàggan baaxul nanu góorgóorlu bañ a sàggan sàggan baaxul sàggan ci ndigal ndigal yàlla yi sàggan ci woyefal tere suñu borom yi ko muy dara bu nu sàggan nañ góorgóorlu ci ndigal yàlla yi nañ góorgóorlu ci tere ci wattandi ko tere suñu borom yi nañ góorgóorlu ci li yàlla bëgg góor góorlu bañ li yàlla bañ góor góorlu bu baax wow yoon ku ko sóobu ku ko sóobu muccuk adduna ak mucc àlaxira rek moo lay gàttandu tex biir ak bitti moo lay gàttandu defarug biir ak moom la suñu borom di def ci yow nañ góorgóorlu ba gën a sóobu bu baax li ci lépp ay fiir rek la fiiri seytaan rek la fiiri la ak nattu boo xam ne nag ba suñu borom moo ko nattu doomu aadama hmm, lu baax moom du yomb mukk kon natt yi dafa mel ni mënu cee ñàkk ndax mooy tax ñu xam ñi dëggal ak ñi dëggalut ñi bëgg ak ñi bëggul waaw nattu mun see ñàkk wal nun ñëpp xam nañ ci dara Sëriñ Tuubaa yàqalul kenn da tooñul kenn te bu ko ëpp nattu amul kon yàlla moo xëyul ci kenn xëyul ci fenn xëyul fenn xëyul ci lenn daraam xëyul ci kenn moo tax nag teraanga am ku ko bëgg a ku ku ku ku ca bëgg dëkk te sax ca doo sàggan doo sàggan yàlla na suñu borom teqale sàggante yàlla na suñu borom gën a xiir ci boppam yàlla na suñu borom gën a xiir ci sëñ bi yàlla na suñu borom gën a xiir ci lépp lu baax yàlla na somm suñu borom sàmm musul musul na ci iblis ak gaayam musul ñu ci bépp noonu suñu noor yi suñu noor suñu noor muy bakkan ak bànneex suñu noor yi nu nga xam ne ay nopp noppal saytaane la ñu ci noonu yàlla musal tawfeex ji ñu am nag muy suñu borom bindu nu boole nag Sëñ Tuubaa dañuy ñaan tawfeex yooyu di dolli guddi wéy di ñaan nag nit ku ne sañ naa ñaan la bëgg ñu ñaan nag sëriñ bi gàttandoon gàttan gàttandu gàttandu boppam gàttandu ngërëmam te wambatanu boppam allahumma amin barke Cheikh Ahmadou Khadim jërëjëf maa ngi waxaale taalibe yëpp ne jërëjëf yow taalibe yëpp ñu ngi wax jërëjëf li nga yéene yéene nu ko dinu woon yoon wi bëgg nu jariñoo ko tey ak ëllëg sa yéene jooju sun borom dana ko àggale ci bindee fi kon jërëjëf yow waaye sun borom dana la ja fay sëriñ Tuubaa fay la ja ndax bindee fi rek nga bëgg a dimbale taalibe sëriñ Tuubaa yi rek nga bëgg a gindi kon ñooñee danañ la àggaleel sa yéene danañ la àggaleel sa liggéey nun it loolu rek la ñuy ñaan nun taalibe sun borom bàyyi leen fi li ngeen bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa ngeen liggéeyal ko ko te boobaa ñëppay jariñu ñëppay gindiku loolu rek lañ ci dolli maa ngi soññ nag sama bokki taalibe yi sëñ bi wax na lépp leeral na lépp waaye benn benn baat mën nañ ko cee jariñoo mooy dara soppiku te dara du soppiku kon nañuy seetaat suñu bopp di seetaat suñu pas-pas di daggiwaat suñu bopp fas yéene fa mbir ma jëm nu bokk ci ña ko fa yóbbu ndax fa sëñ bi yitteem ji ak yéeneem ji lim bu ci liggéeyam sëriñ bi faaw mu am nan fas yéene bokk ci ña koy ña koy amal sëriñ bi nee na day yomb daa gën di yomb nan fexe muy gën di yomb ndax sëñ bi yéene ji mu am ci taxawu sëriñ Seydil Mokhtar mais ba la ko war ci liggéeyam sëriñ Tuubaa bi yomb ko nun ñi noonu lan war a def boobu moom mii lii mu bëgg a def yomb ko kon nan soññi suñu bopp te góorgóorlu te daw topp ci moom am na yéene dem te bëggunoo bàyyi ci ginnaaw kon nan daw topp ci bu buñ ko mënta jot it nu daaw topp ci rek ndax yéeneem ak yitteem ak pasteefam lii mënu dénk muy jom ak ngor ak pasteef ak yitte nanuy saa sunu tëddee nanuy xalaat loola bu nu xëyee nu nuy dolli koo jëm ci loola ndax loola nu yóbbu fan jëm yàlla na ko yàlla àggaleel yéeneem ci sëriñ bi àggal ko yéeneem ci noonu boobaa nun ñëpp nu bokk jariñu waaye nan waaj nag jërë ngeen